hadiya Cheikh Seydi Hadji Malick ak nag lii ñu fi def ci guddi gi ne lépp nañ ko jël def ko sunu hadiya ci Cheikh Seydi Hadji Malick moom nag ak képp ku mu àndaloon di toog ci jataay bii di ko def ak nag feneen foo xam ne ña ngi fay def lu mel na lii nuy def fii ña koy def nag ka sos yàlla na ko ci yàlla defal yàlla na ko yàlla jotal yool ba muy sunu hadiya ci ñoom ñaan yàlla nag jaamu yàlla yi fi daje kenn ku ne yàlla na la yàlla aaral boppam yàlla na la yàlla àggaleel sa mébét ak sa yéene yàlla na la yàlla dolli jàmm ak sutura yàlla na la yàlla may wér ak gudd fan yàlla na la ci seytaane ak ndog ndoguk jamono yàlla bu leen dara jafe lu ngeen xalaat yàlla na ngeen ko am lu ngeen amit yàlla na barkeel yàlla bu ngeen jéem lu ngeen tële réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm dolli ko nag ci jàmm ji fi nekkoon ne jam ngi fi won nak naka jek jàmm joji nak motax ñun ñi ñu tallu bare sutura bi mi ngi fi yalla nañu ko yalla saxalal te yok ko ne ñu ñaax suñu bop rek ñaaxit suñu bokki julit yépp ñu rafetal sunu doxalin ci suñu digënté ñu am kersa ñu am sago ñu rusante rus yalla ci biir njabotam gi yéenente jam tey dox jam ja tey ko wax diko defit nak boole ko ca kenn ku ci nekk daal Sidi Bakar ne li nga yéene sa bopp ci jàmm yàlla na ko yàlla nangu tasaare ko nag ba ñépp jot ci ñépp am jàmm réew mi ñu ne jàmm rekk moo fi xaj fu nekk sax jàmm moo fa baax waaye nag réew mii la gën a rawe nag te bare na lu ñu tal bare na lu ñu tal bu ñu seetoon sunu bopp am leneen lu ñu gën a soxlaal moo di nañuy def rekk ba jubóog sunu borom nañuy def ba jubóog sunu borom nag ci bëgg a dugg booye boo nga jaare la ko sa digganteeg bokk yii jaamu yàlla yi yàlla kat ñoom ñii la fi am lu muy defit ñoom ñii la ko defal kon daal kenn ku ci nekk daal boo bëggee yow moomee ca la yàlla am melal yow jaam bi ni yàlla bëgg yàlla defal la li nga bëgg loolu daal moo am solo waaye coow yu bare yi ci àddina bi ñépp di ko jàmbat waaye taxul kat kenn noppi nag bu ñu noppi woon kenn ku ne bu ne man dey duma ca bokk léegi ñépp noppi jàmm daal di am waaye nag xéewal yi fi yàlla def sutura yi fi yàlla def teraanga yi fi yàlla def jàmm ji fi yàlla def ñu taxaw nag ci yàq ko kenn ku ne sa xalaat sa làmmiñ sa xel du xel muy defar doore ko nag ci ñun ñii nag ne moom mii toog rek di wax ak ñun génnewu ci nag wax ji boppam ne bu ko defee nag ñëpp war na ñoo dox jàmm am jàmm wax ko jëflante ko nit nag booy defanteeg moom jàmm soxlawul mu teew soxla mu fàddu yow daal defal moom jàmm te yàlla tax bu kooka fàddooy yàllaa ngi teew ci sa kanam loo def moom yàlla yëg na ko yàlla nee na ànd leen ci ànd bu rafet dee leen dimbalante ca anam gamu rafete jàppalante leen ca anam gamu gën a rafete mën ngeen a ànd ànd gu gërëmul kon ànd leen ci ni ma ko gërëme wa taawunu ala albirri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwaan loolu nag yàllaa ko waxal boppam yéen daal bu ngeen bëggee mel li leen neex ñaan leen yàlla mu neex yàlla noone neex yàlla bu fekkee ni neexul yàlla nag dund gu sànku la yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal wax nag rek yaakaar ni la góor ga daan wax rek sunu way juró baax bu baax ba bàyyi ba waaye mu ni xanaa lu ma sañadi sañadi citoyen la ci réew mi kon war naa mën a wax ñu ni ngi ci gannaawam rek foofu rekk lañ ko teg nit daal lu mu fekke am na ca xalaat xalaat booba nag yàlla mën na ko cee jàpp mën na ko cee defal yiwit mu ngi tolloo nag xalaat ba ak na toll ak lamu mu def nag ngir yàlla te nit nag mënatul fekke benn xew-xew ni sama yoon newu ci sama yoon daal newu ci kenn mënatu ko wax man raa minkum karan moom daal képp koo xam ne kii yow mii gis nga lu bon dindi ko soo ko mënul jéebaane ko ñépp jàpp mu daj soo ko mënul jonkanul ni yàlla di ko ñaan yow yaag ñangaam ba yàlla jële fa lool yi ndax ka loo mën ci mënu yàlla la dugg loo tële it yàlla dese na man nga kon daal loo tële rek te mu war delloo ko yàlla kon daal sama yoon nekku ci du am de fekke nag muccul kon daal fa tabarakallahu